ba kenn du mën a jaare foofu ba xañ leen wax dëgg affaire bi du wax naa ko rek ndax fi nga ko waxee jariñ na fa wala du déet waaja daa yor fitalam te mënta jam bu ñëwee fekk naat yi bari lool mu ni tuyyu naat yëpp ni fër mu ni fu ngeen demit dégg de daam looloo tax ñuy fital moo tax ku fi jàngi ñëw jàngal ma réew mi njëgam danga bëgg a woote jàngit nit ñi mbaalu ko mooy nga faay woote xereñ lañ koy defee ku la mission moytu direct dama direct du wax ji waay ab wootekat fajkat ñi lay bokkub liggéey ku ca ñàkk ajo ñu lay jox naa kii du waay waaw bu la bu la nit ñi jaxase ba jaxase la ak ñi fi jiitu woon yow doob attekat wootekat nga naanu doi la xuda sa Aliou Sall naw naa ko lool waaye li ma ko gën a moo xol bu yaatu bi mu am baa xam nit ku mu tudd balaa jàll takkal law garaat donte waajur amul garaat goo xam yow sax oustaz dina ko wutal aw garaat bu ko xamul ñaanal ko wér loolu am na solo de loolu dënn bu yaatu la loolu am na solo dënn bu yaatu la waaye euh, oustaz oustaz baam kii daam lii togg gu ñor la lii ngay wax nii togg gu ñor la waxoon naa ko Tunkara nee naa ko tubaab bi demul mun ma nga lan ma ne ko boo jëlee sa loxo deg ko ci ab ab ab ab resool mi muy def mu ne ma day tëdd ma ne ko yow mi ko bës nag mu ne ma xool ma ne ko yow itam doo fa jóg tubaab bi bi ñëwee mag ñi dañ leen bañ waaye ñoom nañu def mooy fab suñuy doom ak suñuy jarbaat jàngal leen dem yoxoosu dem nu defee ni tubaab ba dem na ndekee de tubaab bi weex bi moo tane bu ñuul bi moo tax ma ne woon tubaab bi won fi te weexoon moo fi dellu si tey ñuul bukki bu làmboo derul bëy moom na ji jii di nirool dafay nenoon ba mu laa dem bàyyi koo ki donoom cujjaadi ñii di xëccoo tey moodu lañu walla Paul seen turi moodu yi kum nax tax nga foog ni ki ñoom waroon nañoo Edouard ñoo bokk kees gu leen mool ba fi jëwee la taxaw xeex daara nu fi fekkoon ñu daal ci yar ndawil islam gas ba xam di ko suul xeex na ba noot sampi daaraam yar ci doomi suñu réew ak maas bu koy wutu moo ñii tey di jàng école ma ne njàngum école du lu ñuy bañ ab yaram moo waroon yaram lislaam ba ñu mii noonu tax ba tey jikkondool hmm. bokkul tubaab beeki feemam fu fi aw ba fa fiir goo xam ne saa su ne muy rax fukki gëddam ya te ma ne tubaab bi lor nanu daa ñëw fii fekkoon sunuy maam ñu yar ci diine ji mu ni baaxul jox leen ma seen doom ñu sànku jox ko ko ba mu yar leen ba noppi ci ñoom ñu namp ci jikko moo tax tey niroon na ñoom moom lañ wute mooy der bi suñu làkkee nga wax ni ñooy ñoom noonaat la jikko ya ku bañ lii bu leen jox doom ndax jàngal ko toqi ko bu mu mel nag ni yow damaa waar ku toqi jàngale mooy doon yow yowit nga doon moom góor ga daa doto moon daam góor ga daa doto moon di jàngale ni doom je neel yiif doom je ni yiif mu ni ko waxuma sama yiif gi yiifuk nit ñi yaa wax du ko man parce moo ko jàngal jërëjëf Oustaz Alioune Sall nga nu occasion bii ci mu jot julli di daje bu ñëpp meloon ni yow ba tey ñëpp nañ yor seen puso li xar ci julli ñuy ñëw ko waaye ñu yor seen paaka rek te léeg-léeg kenn am na ci ñoo xam ne ay boroomi xam-xam lañu de dañ leen a yarul rek waaye benn waay boo xam ni dafa raccoon bu ñëwul ci diina ji moo gën foofu nga dàqal ko nit ñi ni laan yahdiyallaahu bika rajulan waahidan xayrun laka min umri naami yàlla gindi ci yow kenn moo gën nga xëy moom li jant bi fenku di ko tiim moo gën di tàng mel ni xal wa romb taal seet salbiyaat yi seet salbiyaat yi nit ñi war ta doon sa paal ijaabiyaat yi seet ko salbiyaat yi baal ak mbaax a jiitu mbon ak mbon lëf la lu gaar boo ko foppee mu set boo ko bàyyee mu saal te aw awraati ay bun bu ñu ko def kuñ seet sa awra gis ko moo tax man la baal salaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf tafsir tafsir gasama bari ay woy yu yu am solo la def gannaaw bi mokkalee woy yu bëri ci adaa buy joxe dafa baax moo tax li li muy wax ñu bëri duñ ko dégg moo damay proposé ngeen dem bind woy yooyu ngeen dem moom bind ko. waaw seet ku am adaar bu koy jox ñëpp jëriñ ci allah incha allah. benn mbindeef julliwul woorul saraxewul ajul màkk mu woo leen ni leen kaay leen ngeen su ko. loola tax ñu sujjóotal nit mooy sa sa sawaytuhu wa nafaxtu fihi min ruuxi fa qawlaw saajidin su ma ko bindee dinaa def lu bokk ci man ci jëmm ji loolaay tax moom muy ku gën ci nit ñi moo tax malaaka yi sujjóotal ko planète bi ñu nekk nag ci terre dafa ñeent yoo xamante nii su baaxee rek nga jubak sa borom waaye su baaxul dootoo jubak sa borom loolu mooy responsabilité oustaz Alioune Sall Oustaz Dame Ndiaye ak mbokk yu baax yi nga xam ne nekk ci daawa bi ak ñi yor ci école yi di jàngale mooy ruux moomu la ñuy bañ mu soriyantu ak suñu borom subhanahu wa taala ruux moom la ñuy bañ mu dund leneen lu dul yàlla moo waral purifier am ci yu mel ni yii ala bi zikrillahi tatmainul qulub beneen ba ca des mooy xol yàlla xajul fenn ci nit ci loolu ci xol te lii tax xol yaatu ubbeeku mooy lii déglu kàddu yàlla déglu waaraate xam yaay kan xam koo war a fat ak xam loo war a gëm ak ko war a àndal ñetteel bi mooy jikko jikko la yàlla tagge sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam doonal doomu koo mën a doon dëkkal foo mën a foo moo la neex dëkk fu waaye boo amul jikko rek safoo yàlla rawatina jikko ji rafet mooy li oustaz daam doon waxtaane léegi siiwal mbon nëbbug mbaax ki yàlla yónnoon ci ñun looloo taxoon yàlla yónni ko mu ñëw wax ak ñun lan moo di mbaax luy tax ñu jubal sunu borom subhanahu wa taalibe Iblis nag sakk ak suul ak kast rek mooy seen métier waaye heureusement bu ñu amee élément yu baax yu mel ne yii at mu jot Oustaz Alioune Sall tànt fi tànt bu toll ñun ñëpp ñu ñëw bi def mooy bakkan bakkan matérielu Iblis la foo rek la bëgg lu neex lu sedd lu nëtëx lu tooy soo ko amee compte banque sa wet kat kat sa wet kër ci sa ci sa ci buntu kër compte banque jongoma néew na ngay am loolu ba pare di am yàlla boo amul ko la yar amuloo jikkoy daara moo tax seen liggéey oustaz di lekk liggéey bu noobal di liggéey bu jafe jël jaam ñëpp leen génne ci tos ko rek leen rëgët jëmale leen ci sunu borom subhanahu wa taala moo waral tey tant bi nga tant ko tey nga ko tant ren mooy sunu 23e édition yàlla nga amaat yeneen 23 te passé ko di gërëm di la gërëm bu baax boroom jikko ju rafet la lii tafsir Moussa Gassama wax ñun ñoo ko mën a seede ndax defe naa ni bientôt 23 ans wala boog lu manqué tuuti maa ñu ngi séq micro ak sëñ Mbacke Sylla mii muy nit ku gore di nit ku baax ku rafet jikko oustaz Alioune Sall ku rafet jikko la nit mën na ko ëpp xam-xam nit mën na ko ëpp xaalis nit mën na ko ëpp waaye nit gënu ko baax jikko te man su ma ko waxee am na lu ma ci xam du mer doo dégg benn kàttu nag ci nitam nga wax ko ci nitam rek mu jàppal ko ko du nee na ma maag Mbàkke si li mii du ma déglu audio ndax bëgguma ko yàq sama xol kon nag oustaz royuwaay nga nit ko baax nga nit ñi heureusement sax ñu baax ñëpp yàlla dana leen bëgg leen yàlla yàlla dina dëgg ñu baax ñëpp ñu bëgg leen ndax dangaa baax yal na yàlla sàmmal ñeenteel bi wax naa ko mooy ba mooy bakkan bakkan moom li mu bëgg rek mooy lu nooy lu sedd lu dina tëx lu xumb lu yànji yooyu lay wër moo tax boo ko amee néew na ku jógee Italie wala ku jóge Europe am oto 4x4 am am léppam dem ca jàkka ja wasifam mbaa di jàngi xasida moom